yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, li ma wax rek mooy li ñu doon xaar depuis des années di ko xaar depuis des mois te yàlla dafa tey la tey la tey la jour J bi 23 janvier 2022. élection yi euh, liñ ciy ñaan mooy élection jàmm ak salaam ndax loolu la Tivaouane soxla Tivaouane soxlawul violence soxlawul ay saaga soxlawul lenn donc li ñu mën rek mooy ku nekk euh, boo jógee voté ji boo pare nga ñibbi sa kër xaar résultat final bi donc li ñu wax rek mooy yàgg naa lancé appel bi. te dinañ ko ne uti di lancer appel bi pour ñun ñëpp benn lañ ay doomu Tivaouane lañ donc lu mën a am rek si Tivaouane moo si gagné donc mais Tivaouane soxlu violence soxla wul leneen donc yàlla def na def nañ suñ accomplir nañ suñ devoir citoyen ñëw nañ voté si école El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh bureau vote euh, numéro numéro donc def nañ ko comme nañ ko bépp citoyen war a war a defee. ndax am nga yaakaar. moom am nañ ko à 200 pour cent ndax xam nañ population bi yëpp ñu ngi suñu gannaaw te loolu mooy ñu waaw waaw noté nañ ay wax rek mooy moom laa wax léegi rek bu njëkk da daan gis opposition moo daan woote violence mais tey li gën a doy waar mooy teewoon maintenant c' est le pouvoir bi mooy woote violence ndax violence yi am yëpp c' est le yaakaar ñoom ñooy woote violence bi teewoon soxlawul loolu donc li ñu war a def def nañ ko lii res ñoom aussi li ñu war a def nañ ko li des mooy nañu xaar résultat final bi te loolu moo am solo mais du violence du saaga mooy tax parce que dégg dégg nañ aussi ay ay audio sax yuy circulé euh, dégg nañ le maire sortant am personne muy wax muy wax tous les moyens sont bons pour gagner et je pense que loolu c' pas c' est pas une bonne leçon voilà gis nañ aussi tamit ay nit ay militants benn bokk yaak toog si bureau de vote yi yor seen 5000 francs ni ko andi bulletin bi wat Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ñu jox la 5000 francs loolu je pense que. dañuy dañuy nax dañuy nax seen bopp rek mais Tivaouane yeewu nañ population bi yeewu nañ. mais loolu depuis toujours ah bien avant la campagne bien avant ak jour élection yi ñu ngi ci def mais loolu damay wax ne c'est peine ndax li yàlla def def na ko pare te jàpp nañu Tivaouane incha allah ñun dañ fa topp.